ñuy jàll Hamdi Moustapha mi nga xamante ne bii dafa dem ci ak loru ñi nga xamante ni bii ñooy wut ci nit dara walla natt bu leen yàlla teg tax ñuy sonal seen moroomum jaam ba sax man caa faat ba kanam noonu lañ koy mën a waxee ndax kenn mënta faat kenn ku faatu rek dafa fekk ak ci loo mën a faatu ak ci lum na mën a fekk bu àndut ak sunu boroom rek faatu du mën a am ay na aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada la alquran wax dee kenn mënu ko rëcc dee naturel day am waaye bu naturelul itam mu jaare ci kenn mbaa mu jaare ci balaa mu jaare ci géej ci ndox mbaa ci oto mbaa ci avion mbaa ci lu mën a doon daal day fekk dogalub yàlla ànd ca toujours ñu gis accident am ñu dee am ñu dul dee moo xam ci bateau yi moo xam ci oto yi moo xam ci avion yi waaye bu ñu seetloo réew mi jamono yi agression yi dafa bari lool waaw ñi ñuy faat itam muy jéggi toll ci jéggi dayoo xam di Moustapha mi bu ñu ko jaar ginnaaw bu ñu ko jaalee ay mbokkam ak i mbokki taalibeem ak mbokki dëkkandoo moom yëpp di jaal ñëpp itam at yi yëpp ñi fi faatu ñëpp ñuy jaale ñëpp tey ñaan ku tedd ki yërmandeem ji mu dolli ne ci yàlla ak yonent bi ak ay xéewalam topp leen waaye jamono bi nu toll nii dëgg la dégâts yi bari na njaaxum yi bari na waaye innal xasanaati yuzhibna sayyiaati gis ngeen kilifa gi fi nekk da al cheikh Mouhamadul Muntaqa kalaafam gii yu bari dina ci saafaroo saafara woo ay xéwal yu bari yi dina ci feeñ donte njaaxum yi bari na itam loolu li ciy defub liñ ci war a defub tegtal rek mooy bi nawet bi jub si balaa bi doon ñëw te mel ni dafa am lu ko dévier mu dem ci jur ga moo ne bu neexoon suñu boroom mu ñëw ci nit ñi bu ca kenn génne sëriñ Muntaxa ak i mbiram waaw ndax wolof day wax ne tombe waral ay gaaf waaye tombee waral itam ay di baax loolu li ma ci bëgg a wax mooy xam ngeen ni ñun ñooy waa diwaanu silkul jawahir fi axbaari sarair loolu nag ñi jàng arab te xam lan lay signifier xam nañ ni axbaar israël kat pluriellement mooy ay secret yoo xamante ni bii dañu koy dévoiler man nag bala may dugg ci jéem a dévoiler dara dama ci wax ak kilifa ji wax ko sama xalaat wax ko fii jamono toll ak yi xew yépp ku ne xam na ni dafa am ay invisible yoo xam ne dafa am lu ñuy tuddee jinne am lu ñuy tuddee darawaan ñuy jaxasoo ak ñoom dañ leen di xamal lu xewagul mbaa xew ba noppi ñu xamal leen ki ko xewal ak fa mu xewee li tax mu xew yooyu ngi fi dañ ci dul dugg rek ndax ñun ku tedd ku mën a ñor ak i xasaay itam li ñuy njëkk a wax mooy di baaxe ñëpp hafizani hasamani najjaani allamani man bil huda nii wala sallimtu min al aadai turran ma altija li rabbi wa baabulaahi lam yaku murtaja waaw wala mun na alaya bi ulumi al ashfiya wa bi kitabatiya kulla dashfiya bayit yi benn bu ci waay man rek foo nekk suba ngoon foo nekk gànnaayoo ko <laughs> dëgg la dee moom kenn mënu ko tëb bu ñëwee day ñëw ni ma ko waxee léegi rek ci aaya bi donte da nga dugg ci biddiw yi ci asamaan si itam mu fekk la fa bu xasee jot waaye li nu bëgg a wax mooy ñett ñi nga xamante ni bii ñoom ngóor sii dem ñoo ko ko def bu nu neexoon dénoncé leen bu nu neexoon wax seeni tur ni diw la ak diw ak diw waaw ñaar ñoo xam ni dëkkuñu ci réew mi ak kenn ku dëkk ci réew mi bu nu neexoon wax seeni tur mbaa ñu abrégé ko waaye yooyu dem ci dul dugg du ma ne nag duñu ci mus a dugg ndax bu ma waxee kilifa gi ba noppi bet gi nu mën a jàppalee état waaw ndax xay bu moom Sëriñ Tuubaa moo ne yàlla allamtenil xay ba li nëbbu yàlla ko ko xamal noonu la ko tasaare nag ci ñu ko neex ñun nag amuñu jotuk ay rawaan wala ay jinne waaye bu nu waxee ak sëñ bi ba noppi xilaaf ak sëñ bii lu ne dina ci feeñ lu ne dina ci génn ñiy def loolu daal bay ba ñu def attention ndax kenn mës a dégg ma waxee nii li ku li shay in nag ajal loolu mooy chaque chose en son temps waaw ñiy def loolu bay ba ñu teel cee génn ndax bis bu nu waxtaanee sëñ bi ba déggoog waa état <laughs> dina dimbali état ci lu bari waaw ndax bu fekkente ne def nga njaaxum dañuy woo invisible mu ni diw a ko def diw a ko ko defloo diw ak diw la àndal nangam ak i nangam waaw